ñaan Sénégal yéen a fi jàmm yàgg di ñaanal way dawlu yi suñu borom yërëm leen te xaare leen te àjjana yi fi daw si ñu feebar tëdd si hôpital yi si suñu borom seen bopp rawatina ñu caabi féetee suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàqu di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg tey nañ ñëw Malika xool ci fi champion ndaanaan soo ne Tony Junior sa la dem ci kër mbir naa kër mbir ndaanaan yi fa dëkk bari na waaye ñuy nuyu kenn muy Tony Tony bu mag Tony Junior Tony bu mag ñu koy buggee bu baax baax di ko ziar di ko jox wàccu waa Mbour Tony Junior ziar na. waaw bisimilah bisimilah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen salaay salaam ñu sant suñu ñaari waajur bu baax a baax di leen ñaanal jàmm bu baax dem ba ñu yàlla bàyyi leen ba mu fekk suñu njëriñ di nuyu waa tundu jandeer bi yëpp rawatina champion nekk yëpp xam nga di nuyu champion jëm teer li bi dooroo ba si kaw ba si suuf ñu nuyu ñëpp.

suñu waa maire yi mooy maire Diender mooy monsieur le maire Assane Ndoye maire Kayar Gass Ndoye xam nga maire Morola Yves Landing Ciss maire Notoogo Jama monsieur le maire Maguette Mbaye bu baax di nuyu ñëpp di nuyu gox bi ñu jógee xam goxu Abdourahmane Ndiaye Falang di siyaare ñëpp rawatina di nuyu école de lutte Abdourahmane Ndiaye Falang di nuyu suñu coach yi ku ci mel ni Garga xam nga Mourlaay Maysa Ñang Baye Daam Xaadim xam waa Kër Matar di siyaare bu baax a baax a baax rawatina waa waa ñoom Bac Seras ñoom Marley di nuyu ñëpp képp ku ne si Ibou Jëndeer ñu ngi lay siyaare di nuyu Codé sama doomu yaay doomu yaay Tony Junior ak sigaare ak góor gi grand béykat ah, un gi yëpp bàyyi ñu kenn rawatina waa Kër Mbir Ndaw gi ni tey loolu mel ñoom di ne yëpp rawatina Elton doomu Kër mu maanaam Sa Thiès ñoom ñëpp dañuy si man. avant bi bu baax a baax a baax ndax ñun loolu mel moom la ku si mel ni Al ñu jël nuyoo ba di ko teg ci loxo bu tegal ñu ko si gars yi parce que na lool moom gannaaw Dodo Lo gis nañ ci taxawaay yooyu tamit gannaaw ma Samba gis nañ ci taxawaay jàpp nga ci bu baax a baax Serigne Ndeye Ndiaye Pakala moom it jàpp nga ci bu baax a baax a baax Assane Fall Paul Maurice jàpp nga ci bu baax a baax a xam nga mu nekk loo xam ne combat bi nañ ko ay mois pendant quatre mois. mais gis nga yàlla ñun muy dogal buy dogal ñun dañuy nangu sabablu sabablu rek di def lu ñu war a def amaana di ñaan yàlla jàppaat nañ ko le 30 juillet di ñuy gars yi xam ne ñu ngi si war a jàpp yëpp ñu ñu jàpp si bu baax a baax di ñuy ànd dooleel tous les joueurs diaspora ñu ñu ñu fi ak tous les joueurs bi gën a góora Aladji Fall El Matador di leen gérer bu baax ndax dañuy sonn si tous les joueurs. tous les joueurs ñëw si début saison tous les joueurs dafa la waa ubbi rek sa diggante Doudou Sané waaw non ñun avant Doudou Sané tëjee nañ parce que foog naa foog naa ne juróom lañ jël trois hmm, naa euh, Abdoulaye parce que Cheikh euh, parce que boo daan demi final mu euh, gaal gi mu mu génn waat deuxième bi mu ñàkk téere gaal gi man ak ngañ seen maa ko daanoon foofu final ñu ñëwaat mu amaat ci man muy ayoon ñooñu yëpp dañuy sant yàlla baax yi si des bu baax parce que boo gisee combat arène yi sax ñoo tax ni li tool géer wàcc bëriwul xam nga mënu am combat di topp di bëre di bëre gars yi du ñu noonu ndax dañuy téye sa licence quoi pour fan yi nga xam ne ñooy séntu tournée dañuy gis lu ne ñooñu duñ oo pour lan ñuy teewàcc quoi pour ñu xam ne suñu licence CNG moo ci teg loxo pour combat bi moo tax mënuñoo génn bëre ji ba ne man doon dañuy sugale combat bi ñu dem bëre loolu si ñun quoi ay ma seeti nag sa adversaire mu ne li ngay def moo la ko dàq muy bëre bi ngay bëre nii moo la ko dàq bu dee xeex moom waxaale wuñ ko. am na tuuti dama koy nuyoo bu baax di ko parce que. ñun ñaar mën naa ne dañuy mayante xaalis muy Mbaye Junior muy Tony Junior xam nga waaw kon nag avant wax moom man parce que dama dégg wax benn baat bu bari muy Tony Junior respecté wu ma Tony Junior joxuma cër xam nga tey lamba dégg naa benn champion bu wax barki démb Serigne Ndiaye numéro 2 moo wax ne mbirum boppé de buñ da ngay foog ni sax dañoo xeeb adversaire bi ñuy bëreel fekk du loolu dañoo xam ne nekk si ñoom mais Mbaye Junior ñu jéem ba xeeb ñoom duñ bëri neuf combat ñun buñ ci du seen combat ñu daa am luñ ciy a respecté amaan wax ju bëri ji parce dafa bëgg a bëgg bi ba pare di wax ni Tine Junior nee dafa bëri wax waaye moom moom xanaa kon waa Sénégal war nañ sax parce que foo gis Mbaye Tine Junior ngay gis muy wax ci Tine Junior tour yor amul temps sax pour suñu besoin suñu ñun ñu ngi liggéey foog naa ne gars yi ñu pour ay émission mais dañoo amul temps bi dañuy liggéey comprendre dafa nekk lu mën a ñàkk rek mais comme tellement mu xool li muy wax ba pare avant tout bala muy dégg comme tey waa ji bëri ji muy wax foog na ne tour yor nee na toll na non non non dafa bëri météo foo toll YouTube moom nga gis foo toll muy takk rajo émission bu mu oonee kaay def émission loolu dafa mën a ñàkk. adversaire bu mu am moo moo ko jaral waaw mais dara làmb la rek xam nga mbéy ci njiir liñ ci xam moom mooy le 32 juillet ñu duma ko tànk amul luñ ciy tedd burgil dama te te dama leen doon am décision dama koy duma beneen eh? maag moom def si boppam loolu dama koy duma maa ngi dama koy duma mu neex dama koy duma si kàttan da koy teggi nee na xeex si kàttan ba at bi bu ngeen xam kan mooy daana ñun duñ arrêté góor loolu nekk suñu habitude ko am tuuti xam ne bu arbitre bu arbitre sublee mooy déclenché xeex mooy dóor mooy attaqué mooy bëre mooy daan du ko yàq. nee na nga faa moom mooy fajal a dansé si yoon mbéyte si yoon dansé wul orga dansé wul xa dansé wul parce ragal la ñu ne. ragal ragal la. ragal la <laughs> wallaay ragal la. xam nga moom bëree xale la yor mu bëtt yooyu ay indi mu may la nga dugal sa bopp jàll yooyu gars yi weesu nañ ko yooyu bàyyi gars yi dañ koy fàtte teg na la dañoo war a bu bëree bëree xale la bëree tout tànk yi la dese ba tey quoi xam nga kon. loolu mu daan tànk. bëree tout tànk la rek bëree tout tànk la am na ñoom ciy daan la quoi mais bis bu ko defee dina xam ne Tony dina ko rectifier quoi. dina xam ne loolu du béré si loolu muy def dina xam ne loolu du béré xam nga moom dafa jël lamb ji yëpp si côté mu te nga xam yow idi ñun ba pet moo gën a danger fukk te dañuy dem fekk ba 64 litres ku ne indi say bagages ñu ngi xëy ñu tëll indi suñuy bagages te kenn du xam nu ñuy wane Tony Junior ak yooyu ku gëmul loolu bu nga gëm keneen ay mbirum mbirum ay affaire mbéyte Junior dañoo jaral déplacé dox ba fee jaraluñu ko. jaraluñu ko béykat bi mu ne ko wala respecté wu ma ko déglu ma rek déglu ma rek béykat bi mu wax te incha allah le 30 juillet di nga xam ne ma la wax. 30 juillet si lañ dëkk sampu jaaga si nañ dëkk si lañ dëkk parce que ñun boo xoolee xam ne ñun du ñu war kat. man xam nga man koy dóor ni ba mu daanu quoi man sama xol même même bu may dóor ni sax dama koy yërëm barki Cheikh Tidiane moo tax su ma gisee ne kii nekkatu fi mu def lu gën a yomb rek noppal ka noppal ay mbokkam waaw moo xam ne xam ne mu war a waaj yëpp te le jour si ñu ñaan yàlla mi xam ne moo yor ndam moom moo ndam si kaw duñ ko xaar si dara ñun dañoo ñëw pour complet indi lépp ñun ñoo ñëw pour waaj ñu ñëw ak moom da nga koy duma. waaw dama koy duma duma bi moo tax dañuy ñëw duma moom xam nga dama koy duma. moom gaaree ko. ñu la ay ginnaaw yu baax ndékki. nee ma du loolu du loolu nga nit lay sa xool ak ñu ne sa gëm-gëm ngay waxee mais man gëm naa ne ku dul Ndeye Tidiane boo taxawee sama kanam boo bëggee nga déplacé wu di nga déplacé wu gëm-gëm boobu moom mos a ne si ñun te Ndeye Tidiane mënu ko dindi dama gis benn combat Tony Junior ku attaqué Tony Junior dem uti ka moom seetaan nga. non xam nga ne loolu bu ko waxee xam nga ne mënul nekk idée nañ wax dëgg dafa mënul nekk. mais Mbodj mënul si pulo arène mënul ko dama mënul nga benn maa ngi ëpp fit maa gën a mën a xotteeku te maa gën a xeex maa gën a xeex xeexu mbëgg maa gën a ës ba ñuy dégg sa mën a tuuri joueur yi ñu ba ñuy dem plateau muy rap ram affaire raf yooyu yaa xam nga ni tuuri joueur ku bëreeg Baba Guy gi bëreeg Jackson bëreeg euh, Doomu Jalaaw bëreeg Jëltam te ñëpp dañ tuuri joueur tey mu dee kooku la day ragal kooku dof boobu kooku du wér tuuri du dof la dof du ragal dafa fàttali loolu naa tuuri dof la dof la man déggoo tuuri bu mag li may wax mooy man damay ñaan yàlla à chaque fois say bëre sa xel nekk si yow ndax moom nee na lépp lu ma seen xam dama parce que dof la wóoru ma xaw ma loolu laa. moo tax nga xam ne dof lay bëreel. te si kàttan suñu borom. wala agim dama wax ay caaxaan nag ba léegi dina xeex dina bëre. xeex dina bëre. te bëgg na mu dem si ay bërëb combat bi jeex non non non. koos. koos combat bi. parce que mënoon lu métti mënoon de ñu ngi koy si kattan suñu borom incha allah lépp lu mu am lu bëgg lu ne dinañ ko si dem si kattan suñu borom di ñaan yàlla ndam di ñaan yàlla gars yi nga xam ne ñu ngi jàpp depuis lor ñu leen woo bu baax rawatina waa Casamance waa Siliti Yaama waa Jiboor waa waa waa tamit di leen woo bu ñu jàpp waa ñu jàpp si ñooñu même bu doon ñooñu même bu doon métti xam nga dañuy jàppale ñooñu dañuy di dem Diofior di fa ziar waay sama waay gars baax ñun Ismaïla xam waa Mor Foxo xam di ziar waa Mor bi yëpp ñu di ziar waa Finla xam waa Gandiaye waa Julub waa Mbela waa Mbela Ngiij di nuyu ñëpp di leen waa Sibassor waa War Jaxal waa Beloobe xam waa Gañit euh, xam waa Njaxo waa Luuteen wala dagg séeréer dagg pël di nuyu ñëpp di leen woo ci combat bi ñu jàpp si waaw jaxamut loolu jàpp doyul lamb bi dañu seen lamb la te waa Saloum ñu ngi leen di woo di nuyu Serigne Ablaye Seck Serigne Ablaye Seck Ablaye bu ndaw ak Ablaye bu mag siyaare rawatina Ndiagane waa Ndiagane bi yëpp ñu ngi leen siyaare di leen ñaan tamit jàmm bu baax rawatina sama maaraay yu di leen siyaare Serigne Ndiour Serigne Mbaye Dia Serigne Am Serigne Xalla xam nga di nuyu ñëpp Serigne général général tamit ñu ngi koy siyaar bu baax Ablaye Dia Serigne Ablaye général ñu ngi koy siyaar bu baax di nuyu ñëpp bàyyi ñu kenn daal en tout cas képp koo xam yaa ngi jàpp moom moo xam fu mu jëm dégg nga. bu ñu la wane bu ñu ñëwee ba moom dina ñëw. yow nga xanaa gisoon doo tam sa mbaytin buy lim mbaytin dëkk yi moom lañ jëriñoo jaay. non tellement ñun. ñun amuñu habitude tey di def mbër leneen ñun lu gën lu gën mooy liy doon mbër ñun si ñun la nekk. waaw mais ñooñu tellement ñooñu pour dara ñun dañuy ñëw woote ñu pour mission pour leneen ñooñu dañuy ñëw pour jàpp ci. ay bis la ñuy teg pour dugub ñëw état chaque jour lamb Tony Junior am na ñoo xamu leen état rek laa leen di gis xam nga ñu dee ci man ay coono tellement man yoon la bu ma dëppee micro ma woo leen. ñu gën a am ferte xam ne man fàtte ma teraanga quoi. waaw gis nga moom la dañuy ñëw ñun jëriñ ñu ñëwaat laa ba dañuy ba jour bi ñu fekk amateur yi fees fa den am na ñoo xamante ni teel. kese du keneen xam nga te rawatina waa Tumb Jandeer ñun bu ñuy jóg boo xoolee suñu tool yi ñu jëloon ñu indi ñu cinquante mille la ñuy déplacé pour ñu doog a xam nga loolu dafa métti boo xoolee Dakar ay car deux mille francs am ñoom te duñ jëli car te ñun car cinquante mille la ñuy fay xam nga ñun car cinquante mille la ñuy fay te teewul xool mbooloo mi ñu fay indi di jaay ay six bloc ba sept bloc kooku du mbir mu ndaw si fi mu ne xam nga di ñaanal tamit champion yi am combat foofu ku si mën a jënteeru bu Kayaar moom am na dem le vingt trois juillet di ko ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy di ñaanal tamit Sa Thiès bu Kër Manal am na combat le vingt trois juillet yàlla may ko ndam di ñaanal surtout Falak moom dafa bokk si man quoi xam nga di ko ñaanal bu baax a baax a baax yàlla may ko ndam lu kawe sa njort rawatina Farouz tamit di ko ñaanal bu baax di ñaanal promoteur bi jëndee production xam nga mu yàlla defal ko loo xamante ni macha allah quoi mu mucc ayib yëpp bis bi taaru lool lool lool. lool aussi waa jàmbaar. ñu ngi jàppoon date mu la onze ñu dem ba si biir ñu ne li fi am ñu renvoyé ko mu métti si yéen trop métti si promoteur la lan la waa jàmbaar. waaw amaatu di leen encouragé bu baax euh, di leen wax métti bi métti na ci mbër yi waaye ta ñoom métti na ci ñoom xam nga te li jógee ci loxoy buur bi moom mënuñ si dara. ñun ñëpp ñoo si am muy jàmbaar ñëpp muy mbër yi xam nga ñun ñëpp daal compréhension moo tax ñu jàppaat dat bi déggoo si benn wax benn mbër bu kaas wala ñu dañ ñoo war a doxali wala déet déggoo si benn mbër parce que xam nañ ni ñoom dugal nañ ay centaine nga kon tamit duñ si dara ñu ñaan yàlla def si jàmm ba du am benn dog-dog ñu bëri ko si jàmm incha allah waa jàmbaar yëpp mbër yëpp kenn bañ am blessure di ñaan ñëpp jàmm tamit. tegal émission bi fi mu toll nii nga bàyyi nga si combat bi nga gën leen a woo nga tàggatoo waay. waaw am na tuuti euh, suñu maire mooy Guèye Mbaye gis nañu coono sama mor la sama lépp la foog naa ne ñoo ñëw gis nga open open barki Serigne Bamba billaahi open presse bi surprise bi mu defoon sax man dama bett bi ma ko woowee ni que maire. open presse bi bi ne maire bi dafa mel ni ku feebar billaay wallaay defoon ay surprise yoo xamante ni pour Tony Junior xam nga di ko ñaanal yàlla bu baax lépp loo xamante ni bëgg na ko si tund bi ak lépp loo xamante ni mu ngi koy ñaan si tund bi yàlla jàppale ko si ba mun ko àggale di wax ni ñun ay baykat lan parce que idi ñun ku Tony Junior muy gars yi nekk si tund boobu yëpp bay la ñu xam ñun daa bëri dama dégg ñu xaalisu xaalisu lamb la ñu ngéntee mais ñun xaalisu baykat la ñu ngéntee tey xam nga suñu papa yi nekk ay gërëm yi xam nga di ñu jàppale si loolu xam nga di ñu xeexal suba ak ngoon guddi ak bëccëg tey ba tax na kër goo duggoo tey macha allah ndax mbay xam nga ñun lépp luñ am bay moo ñu ko may te boo xoolee foog naa ni am na am na appuyage bi war a jaar foofu si suñ tool yi la jaar si biir tool yi la jaar xam nga di wax tamit ñu sóoraale ñu jaar si seen tool parce que ñuy bay lañ yaakaar te bu état bi jëlee loolu fu ñuy liggéeyee ak lan la ñu am. te loolu dina métti lool di wax état mu sóoraale ñu bu baax a baax a baax parce que ñooñu ay béykat lañ te ay ay ndaw lañ ñoom demuñu fenn clandestin wuñu tukki ñu demuñu fenn ndaw bu la mujjee judd bu a ñu si yi parce que ñun bay la ñu am moom ñu am te xam naa ne bu ko jëlee dinañu dinañu yàqal si côté boobu parce que dootuñ am pour jëm ndaw yu bëri amul métier bay rek moo seen métier di wax état mu sóoraale loolu bu baax a baax a baax et puis di nuyu tamit gars yi nga xam ne ñu si jàpp di ko teg ci loxo almaktum almaktum mu siyaaral ñu ko bu baax rawatina Birane Ndiaye gis nañ sa taxawaay mënu mën a fay yow Birane kenn du yow gis nañ coono yu ñu daj ngir Tourist Yoor di nuyu feere yi di ko wax ni cent pour cent Tourist Yoor bi nga tegal ma ko ñëpp di leen siyaare bu baax di nuyu ku si mel ni ñoon waa Touba Talla xam ñun Abdou borom Touba di leen siyaare bu baax a baax di nuyu mafia bi yëpp 100 pour cent Tony xale Tony Tony Junior international di nuyu ñëpp Tony Junior pour cent moto gu jamaa leen di siyaar di nuyu si loxo Moussa Laay Tony Junior sëgal di teg ngañ guy gi nuyoo si loxo am ñu siyaaral ma ko bu baax a baax waa 100 pour cent boobu yëpp tamit di nuyu ñëpp bàyyi ñu kenn di nuyu Abdou Fall. borom tarkindaa bi day anniversaire la vingt cinq di la wax ni happy birthday to you dundal loo dundal doyul doom sama doom la sama fils la di bu baax baax baax a baax mu def at mu ko di nuyu waa Kër Mbir ndaw bu baax parce que ñu luñ am Kër Mbir lañ ko amee di nuyu champion yi ne foofu bàyyi ñu kenn di nuyu ñu jàppale di woo Modou Mbengue mu ñëw jàpp si Modou Mbengue ñu ngi lay woo bu baax a baax nga ñëw jàpp si maam Samba Nodou Goudiama ñu ngi lay woo Fallou Sow Garga Amat Baye Karim gis nga coono yi daj ci tool yi Dior dañoo fii bi ñu demee combat bi di ko ñu ñëw yóbbu ay cent huit kilos mu ñëw wàññiloo ñu poids boo xamante ne presque ba ba cent deux kilos xam nga yooyu coono yooyu mu teg ñu ko bu baax di ko masawu mu wàññee keroog xaw na maa dee dootuma wàññeeku mu naa ba nga ñëwaat fii affaire yooyu tellement ñoom chaque jour ñu ngi xool toolu si lu mu ne. ndax mu ngi liggéey normal chaque semaine dinañ deux jours wala trois jours xam di xool naka la seen nekk foofu ñu leen siyaare bu baax di nuyu tamit yi nga xam ne dañ siy sonn rawatina grand Dóoru Mbay ñu ngi koy bu baax Góora Njaay suñu grand ñu ngi koy siyaare bu baax Ngóora Njaay ñu ngi koy siyaare Mouhamed Siis ñu ngi koy siyaare xam nga Badara Njaay El Matador ñu ngi waaye di siyaare tamit lu kura micro Diop ak Samba Faye xaalis bu bëri lañ yónnee si combat bi billaahi wallaahi ak grand bëgg Diop gis nañ sa taxawaay gis nañ ni ngay def social yi ngay def si dëkk bi dina wax ni gàcce ngalaama lépp loo mën ren yàlla nga mën déwén lu ko ëpp yàgg micro Diop ma tóoni man yow si làmb te pourtant Elton rakkam la na boo bàyyi woon làmb tey bàyyi làmb billaahi wallaahi wa taala xam nga di si daj ay coono di ko masawu si loolu bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp bàyyi ñu kenn champion yëpp magu kën mbir yeeg chef de village bi tamit bu ñu amee combat di si sonn Baye Ibrahima Ndoumbé Thiam ñu ngay ñaanal yàlla ba dool macha allah cent ans sans ordonnance dara bu ñu kaa sonal Baye Ibrahima dañuy ay sarax te duñu yéeg mu ñuy bëri day am problème di nuyu suñu ma fiya paa yi Ala xam nga Baye Góor Guèye Baye Mbaye Ndiaye ba fi yaa payi touri jour bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax rawatina xale touri yi jagartaar loo daal idi di kontaan bu baax a baax que xam naa ni émission bi liñ bëggoon man ñu ko parce que dañoo bett moo tax mais nag ñu ngi nuyu ñëpp daal rawatina waa tundu jëndeer bi yëpp waaw cërë jaar <laughs> dafa xew léegi idi ah. jaara mënut la fii laa taxaw wax ko fii laa koy weddi waat loolu cërë faatu la waaw ah, Fatou daañu Fatou daañu dimbali que nag ah non non Fatou moo ñu jaara xam nga léegi jaara su ñu mën dama si mais Fatou bi mooy da ka da ka dimbali woon ni ka mënoon non nit bu dee si mu ci ñun Mourou Daba ñu ngi koy siyaare bu baax Abdou Kopé xam nga di nuyu groupe waa jaxal bu baax a baax a baax a baax ñun Assane ñun Ousseynou ñun Kosa Jam Ndiaye Ousmane ah. ñu ngi nuyu ñëpp parce que bu ñu amee combat dañuy dugg si àll bi côté boobu yëpp dañuy dugg ba war jaxal ñoom ay ndaanaan lañ ay garmi lañ ay xale lañ ñu ngi Moussa Ba sànqal bu baax ñoom ñëpp dëkk ba heure bi am sept gis muy taxawaay ñëpp ci àll bi di bay xam nga di wax état mu sóoraale leen dañuy bay yaakaaroon ñu dul liggéey am na zone yoo xamante ni foog naa ni état war na si mën a dugal loxo ñoo xamante ni tey waruñu sàccuñu tooguñ buntu kërab kenn jëliñ alalu kenn toog ci seen doxal di liggéey kon pour man war nañu gën a mën a encouragé ñu gën a jàppaat a baax ne moom Moussa Gueye Ndeye tamit dafa am xew xam nga suñu jigéen ñi xam nga tamit xew bi mu réussir total di gërëm ñëpp waa war jaxal bi ñu ngi leen di tamit waa tamit jandeer bu baax a baax tey damay nuyu di nuyu waa jandeer waa Ndam xam waa sànce waa sànce maa ngi dégg ñu wax Ousseynou man sànce laa am xam nga ñun siyaar bu baax a baax waa waxal xam waa baax waa biir xam waa Kaar xam nga waa cinquante waa Kër Sega waa Kër Mouché xam nga du nuyu meeru bu baax du nuyu suñ Pape Mourou Ndiaye Pape Mourou Ndiaye ñu ngi koy siyaare bu baax gis nañ coono yi muy daj ndax tuuti si yor. di ko bu baax rawatina waa cinquante bàyyi ñu kenn waa Pout yoosu borom Pout ñu ngi bu baax waa jam ñaa xam ne waa Sibu Xotaat di nuyu ñëpp di jëm waa Kayaar xam ne waa kër Abdou waa Daara xam nga waa a baax ñëw Ngajaga waa Kéeri jëlee pël jëlee olof bu jëmaa ñu xam nga waa Noddogu Jamaa tamit di nuyu waa Bërëb waa waa Kër Malal waa Saaw xam nga waa Mbooro waa Sëgal waa Daaru Alpha dàgg xay dàgg ah dàgg Mbul di nuyu mer daba day soxla suñuy mbir di nuyu njabootam bi yëpp yàlla teg ci loxo parce que muur la bu dàgg la amoon te heure bi daaw la dem foog naa mu ngi am deux ans si kaw suuf di ko yàlla tamit yàlla gën a oyofal suuf si kawam di nuyu ba yàlla gën ko may xolu muñ parce que Modou dafa son dafa sori woon ci xolam chaque jour nee yow laay xoolee Modou Lo bu daaw en tant que man gis di ma jooy Modou ton tamit di ko bu baax moo suñu yaay jooju di nuyu suñu rakk ba nekk ñoon mbay ñoon gis naa ndax man Babacar Tine borom bu baax di leen ñaanal jàmm Babacar Siri Ngoone Adama di leen bu baax di nuyu ñoon Aline Badara di nuyu tamit xam waa Gawut waa Gawut mënuñu leen a fàtte Penda di ko bu baax gis nañ ko xam nga waa Njaay boppam waa Njaay boppam tamit ñu ngi leen di siyaare bu baax parce que dañ am suñuy jigéen yoo xam te ni dañuy bégee bu baax a baax ba di nuyu tamit waa zone boobu yëpp bàyyi ñu kenn képp koo xam ni doomu séeréer nga séeréer saafin séeréer saalum ñëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax alpulaar yaak ñëpp ñu siyaar bu baax abax baax rawatina waa tund jandeer bu baax. idi kontaan naa bu baax waay. maa gën a kontaan si yow Tony Junior di bëggewaat ñëpp rek di joxaat ñëpp seen wàccuwaay li ñuy wax chaque jour rek faaw ma dem ba tunduk jandeer gi di nuyu ñi fa nekk ñëpp nag bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn nee naa nag di ziaraat ñëpp di magalaat ñëpp joxaat ñëpp seen wàccuwaay di ñaan Sénégal na fi jàmm yàgg bu wér tout droit lay doon xalil ba biir wasaare di nuyu waa waa Kër la ah, waa Kër la Jóob waa Kinaay waa ngi waa kër la ji waa kinaay kinaay dafa làqu moo tax parfois dama koy booy dañ may yëpp quoi ascaam ñu ngi lay siyaare mbay si góora ñu ngi leen di siyaare ñëpp waa kinaay bi yëpp bàyyi ñu kenn ba ci tali bu weex mu ne ñu leen fàtte nuyu ñëpp kenn bépp ruq boo xam ne mu ngi tund janeer ñoo xamante ne jeg dañ ciy sonne ñu ngi leen di siyaar di nuyu waa Malika fii ñu dëkk di nuyu Mouhamed mi ñu dëkkal Grand Ndiaye xam nga seen ñaari soxna yi ñaari nday yi ak famille ne si biir parce que ay nit ñu baax lan toni njaago yi ne si kaw tamit ñu ngi leen di ziare parce que dañuy sonn si man waa Malika billahi wallahi amuñ seen fay ku si benn Thierno Thierno bu Tony Junior amul fayam day def lu ne ngir Tony Junior ñoom leen di nga jox si combat bi di ñuy tamit ñun daam xam nga ñoom Ngor Dame Diouf Ngor Diouf ay séeréer lañ mais dañoo bëgg a Tony Junior barke alxuraan fu mu jëm ñoo jël seen daam mooy taal otaam di ma yóbbu di ko siyaar si ga gas gaskel la woon mais day sonn si Tony Junior maa ngi koy siyaare di ko ñaanal jàmm bu baax di ñaan yàlla réew mi jàmm am si coow yi fi amoon métti woon na tàng nag mais di ñaan yàlla yal na ko yàlla seddal góoy dara bañ a xew incha allah mbir yu mag yeeg ñeneen ñi tamit ñu xam ne ñun seen ñi rakk lañ tey jii relève yi waruñu ñoom parce que ku ne ñëw na fi bàyyi leen fi ak ñoom Mohamed Ndao Tyson bàyyi na ko ak ñoom Yékini bàyyi na ko ak ñoom Balla Gaye muy Modou Lo muy muy Ama Sène neexul yéen a ne ci kaw mais sóoraale bëri ndaw yi ñëw ëllëg parce que ñun yéen ñu am parce que tey boo la ñu kaasal tey ngeen yàqal ñu ëllëg ñun lan la fi fekk lan kon tamit bàyyi leen xel loolu di doon siyaare bu baax ñun Gris seen assistant di nuyu association bu euh, bu baax xam nga ñoon libidoor ñoon selembele gis nañ taxawaay bi ñu am ci association bi di ñaan yàlla nag association bi mucc ayib parce que li li simple a boole ci làmb da jékki-jékki rek bi lañ tëral te loolu du yoon te bu ñuy wax làmb li simple moo tax ñuy wax làmb kon gars yi nañ xel delloo delloo li cër bi mu moom ci làmb parfois da dem làmba huit personnes ne fa poids ñu teg trois millions ñu jékki-jékki ni six cent mille lañ teg ndax ñi ñu bëri wala dem ci loolu du yoon nañ bàyyi loolu te respecté ligue simple bi xam ni ay mbër yoon yoo xam te ni dañuy déplacé wu ngir bégal askan bi dañuy saa ku ku na ma làmb rek da ngay dem seetaan ligue simple kon nañ bàyyi xel ligue simple di ñaanal tamit grand alpha yi moom gis nga si manifestation yi lañ ko jàppal moom yëgul tenul xam nga di ñaan yàlla xam nga yàlla yàlla bu ko fi tabaski bi bàyyee ñëpp nañ ko bàyyi njab mu dem tabaski si njabootam grand Alpha Ly nekk ku baax nekk koo xamante ni day doxal làmb nekk koo xamante ni daray coow ñoru ko grand Alpha làmb rek moo ko ñor xamul politique du wax ci politique mais tellement nañ bàyyi nit koo xamante ni deful dara ñu jàpp ko gisuma lu mu def mais di ñaan yàlla nag yàlla na ko yàlla jàppale ba mu dellu si njabootam ba incha di di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn idi euh, di nuyu sa cameraman bi bu baax a baax parce que xalil waa ñu ngi koy siyaare bu baax gis nañ coono yi ngeen di daj ngir dooni ci